mos naa mos naa commandé euh, benn dose euh, kii euh, ndoxum siti bi bon mu ngi tane bu baax a baax a baax looloo tax dama bëgg am beneen dose parce que ndoxum bi siti bi dafa dafa yàqoon sama yaram bi yëpp looloo tax dama bëgg a jël beneen dose ak savon savon bi savon bi laa doon bëgg a jëfandiku quoi bon dama bëgg encore yow ndoxum siti bi dama yaakaar dafa yàgg sama yaram.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 asalaamaaleykum asalaamaaleykum maa ngi ziar man maa ngi tudd Gora Tine dëkk Thiaroye Gare ziar naa la maa ngi la joxoon garabu hémorroïde bi waaw wax dëgg yàlla garab gi baax na lool lool lool lool lool man de yàlla moom ci laa gis sama bopp maa ngi ci sant yàlla bu baax it dëgg yàlla ndax avant ma naa lool waaye keroog bu ma jëlee même pas juróomi fan sentir naa ci sama bop bu baax te gis naa ci njëriñ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 loolu bokk na ci wàllu prévention yi nañu moytu itam di seere seere baaxul képp ki nga xamante ni yow seere daf lay yap même bu fekkee ni amoo dara loo gis sa ginnaaw bàyyil xel ni tôt ou tard euh, mën na nekk li feeñ ci yow même bu nekkul externe bi mën na nekk interne bi tôt ou kon nag yàlla mën nañ ci dimbali képp ki nga xamante ni itam yàlla loolu dal na la rek ci kàttanu yàlla ak ma yërmande mën nañ la ci dimbali dafa la ci ay ñaan ba loolu wér incha allah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 nga faj ko globalement muy traitement général pour wàllu hémorroïde nga tàggoo ak loolu jafe-jafe yooyu moom dootoo ko jàmbat mukk ci kàttan yàlla. salaamaaleykum sëñ bi li ngeen ne mbaa yéen a ngi si jàmm bu baax maa ngi nuyu di leen jaar lu bëree bëri leen ñaanal jàmm te di ko si yéen. dama déggoon sa publicité si télé bi si laa jëlee woon sa numéro pour affaire mauvaise haleine yi man daal def ma sonal trop wax dëgg yàlla jaaxle naa fu ne dugg naa fa boros ak. Euh, façon boros bu ne pat bu ne jënd naa ko bain de bouche ak lépp alhamdulilah sant yàlla sonnoon naa de li ma doon dund ay at mauvaise haleine mu sonal ma witt witt witt billaahi dem naa ba mel na ku dof sax su ma seeni sax balaa may egsi si man laa koy nuyu wallaahi mënuma sama yitte yépp laa daggoon wallaahi azim sonnoon laa def fu ne dem naa fa li ma jënd si ay bain de bouche pat buñ ne baax na pharmacie ma jënd lu ne laa la wax wallaay ngeer sax lu ne luñ na baax na rek ma baaxal sax di ko def ay benn buus ak lu ne waaye mauvaise haleine fi ñu toll nii de alhamdulilah sant yàlla ba balaa may ñëw si yow sax sama jëkkal butéel bu man ma indi bu ma naan butéel ba muy bëgg a jeex bu mel ne daa gën a yokk wóor na yàlla ma découragé si laa doog xool ma ne amoon naa sa numéro jëloon naa ko xaaral ma xool la waaye wax dëgg yàlla yàlla jàppale ñu sant yàlla billahi normal fi ñu toll nii gëmewuma ko sax nag wallaa gëmewuma ko ndax dafa nekk lu métti métti ci man moom toog di ko xalaat ko xalaat bu baax sax waaye sant yàlla yàlla na leen yàlla jàppale daal yàlla na leen yàlla fay gën a wéral cëriñ kontaan naa nekk leen ci jàmm ju bari jërëjëf